seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la bu yónni woon ñun mu war ñoo teete naka la ñuy jaamoo yàlla yàlla moomu subhanahu wa mooy ki nga xam ne day fay képp koo xam ne lam la wërsëgal yaa ngi cay jël di ko joxe yàlla moom moo ñu dikk lépp lu ngeen joxe danaa ko remplacer yàlla moom mooy ka bëgg ñay rafetal jëm ci ay jaamam te du neenal yoolu jullit ba nga xam ne dafa rafetal ñi ngi koy sant di ko gërëm ci xéewalam yi baa yam baawaan ci ñun di seedina jaamam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo doon yonentam ba nga xam ne moo gënoon a ci jaami yàlla yi moo gënoon a ci jaami yàlla yi daawul delloo kenn koo xam ne dafa ñëw di sàkku ci moom dimbal boo xam ne mën na bal lam daan wax mooy bilaal lu fi nekk joxeel bu ñu ragal yàlla subhanahu wa taala danañu dolli kooku mooy yonent yàlla ba moo tàggatoon ay saxaabaam ñu jaar ci yoonam jaaroon seen dund àdduna yépp moo doon jëkkante jëm ci seen boroom jëkkante ci lépp luy jur ngërëmal yàlla looloo tax ba seen alal ya dañ ko doon dëkk di ko joxe di ca gënale ñeneen ci loo xam ne sax soxla woo nañ ko ba suñu borom yàlla tagg leen ci téeréem bu tedd bi yusiruuna ala anfusihim walaw bi bihim xasaasa saxaaba yi de dañuy gënal ci ñeneen doonte ne la ñuy joxe ñu ko soxla woon lañ suñu boroom nañ ne képp ku yàlla musal ci sa nayu bakkan yow de xam nga texe nga te mooy képp ku yàlla musal ba fépp foo xam ne war nga faa def doo hésité da jël def fa ku mel noonu day xamal ne dexe na looloo tax ba mbokk jullit ci li nga xam ne mooy suñu jeexitu jeexitu chahru ramadan bi ñu ngi leen di dénk ñu yeesalaat tuub dellu ci suñu boroom kenn ci ñun bu mu dee mukk lu dul ma nga deeyaale tuub bu sell waaye jëkkante ci lépp lu baax balaa yàlla di indi gàllankoor buy dox suñu diggante ak moom ñu jóg suñu diggante ak suñu boroom di ko tudd lu bari di ko jéggalu lu bari waaye yi di bari di jox ngir moom di joxe ci lu ñu nëbb di joxe ci lu ñu xeeñ ngir encouragé ñeneen te xam ne day loolee bu amee suñu borom day yokk seen wërsëg suñu borom day wàcc ci yéen seen ndimbal yonent bi alayhi salaam daana wax ne xam leen ne day xéewali yàlla di wàcc ci yéen la tax mu koy def mooy ñu ñàkk ci yéen yàlla joxu leen lu dul ngir ngeen jàppale ñu ñàkk fiig yaa ngi jàppale ña nga tane yàlla di yokk ay xéewalam ci yow loolee kon ñu bàyyi ci xel ba baax daana wax yërëm leen ñi néew doole yàlla yërëm leen mi ngi noonu def leen njekk ci ñoom yàlla def njekk ci yéen lii lépp nag mbokk julit am na benn jaamu yàlla mi ngi nii tiim ñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala farataal ko ci mboole mi jaamam am na lu ñuy tudd zakat mbokk zakat yàlla da ko farataal ci kii am nisaab mooy am nisaab boo xam ne dafay am taux bu muy yegg bu dee xaalis am nisaab bi rek lu lay sax danga cay boole denc ko ren ba déwén amma jaamu yàlla gi ñu ti ñu tiim di jaamu yàlla génne asakay muurum koor ñu zakatul fitre suñu borom yàlla subhanahu wa da ko teg ci mboolemi jullit loolee nag day doon loo xamee ne nii suñu borom yàlla tudd ci téeréem bu tedd bi balu borom xam-xam yu bëri la ñuy firee la yàlla wax qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla texe ne day ka nga xam ni daa sellal boppam tudd yàlla dem julli ji loolu mooy bisu iit jullit da ngaa war a génne sa zakatul fitre bari di tudd yàlla dem ba fa ñuy julli ba imam bu ñëwee nga ànd ak moom julli lii mooy la xam ne moom lañ koy firi loolu moo tax ba mbokk lii nga xam ne nii moom mooy euh, zakatul fitre mooy la nga xame ne nii jullit da koy génne ngir la nga xame ne ay rëcc rëcc yu ko daloon la ca koor googee suñu borom yàlla daal di ko tey faral loolu la yonent bi alayhi salaam wax te mooy yonent bi alayhi salaam nee na yàlla tere na zakatal fitre tuxratan li saaim min allahi wa rafas mboolem wax yu ñaaw mboolem jumte yi nga amoon boo génnee zakatul fitre loolee da koy effacé mu dem dal borom xam-xam yi dañ naan ki xam ne da doon julli am ay juumte yu ci def daa yokkam daa wàññi su paree day def ñaari sujjóot sujud yooyu réparé julleem naka noonu it mbokk weeru koor du ñaari fan du ñetti fan un mois la un mois boobu yëpp ndax mosoo cee tarxiis xool loo wur xool wax loo wur wax ila axiri loole nag di njuumte yooyu yëpp di dajaloo sa kaw heure boo génnee zakatul fitre loolee da koy effacé ba mu tàkk bokk zakatul fitre suñu borom dana ko farataal ci mboolem jullit ni ñu koy waxe san donte ne nii surut ba nga xamee ne nii moom lañ cay teg mooy fekke ne am na kattan ci mën ko am na kattan ci mën ko du wax na ko borom xam-xam yi génne du wax na ko borom alal yi génne ña nga xam ne dañuy miskin duñ ko génne déedéet borom xam-xam yi dañ naan képp koo xamee ne nii lii di bisu iid bi yaag sa njaboot am nga lu ngeen dundi am nga lu ngeen añe am nga lu ngeen reere la des ci sa alal da ko war a génne zakatul fitre loolu moom la boroom xam-xam yi di wax ci loolu ni nekk farata su ko defee la nga xamee ne nii <coughs> mooy zakatul fitre kañ lay doon ku far kan lay nekk farata ci moom mooy koo xam ne ne fekk ne bi si iid bi képp koo xam ne bi si iid ba ñëw na nga fekkee ko zakatul fitre war na war na ci yow te mooy kon ña dee avant si it bi ñëw ñuy zakatul fitre war ñoom su ko defee képp koo xamee ne nii fexe na ba zakatul fitre boobee génne na ko ci bisu it bi nga la waay na ko génne avant muy julli ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamee ne nii bisu ah, korite daa ñëw nga daal di génne sa zakatul fitre avant ngay dem julli ji ku mel noonu day yàlla subhanahu wa taala dana ko ko nangul waaye képp koo xam ne da ngaa julli ji ba ñëw doo koo génne loolu day dal ñu bindal sarax waaye la zakatul fitre doon taxawee te mooy effacer la bakkaar yi njuumte yi nga am ci koor gi loolee mbokk da ngay gis ne loolee dootoo ko am su ko defee la nga xamee ni nii mooy zakat bi boo ko génnewul woon ba julli ji ba ñëwit ah doo tey fokk da nga koy génne da nga koo fàtte ba ci ëllëgu koor ga da nga koo fàtte une semaine du tey da nga koy génne lu waral loolu mooy àq la doo xam ne miskin ñoo ko moom kon tey yow yaa des la njuumte ci imma da ngaa fàtte wala da ngaa sàggan loolu moom da nga koy tuub sa diggante ak sa borom waaye miskin yi ñoom la nga xam ne mooy seen àq da koy jël nga daal di leen koy jox su ko defee mbokk jullit bokk na borom xam-xam yi la xam ne wuute nañu zakatul fitre kañ lañ ñëpp dëppoo nañu bisu it bi moom mooy bisu ngëneel bi mi ngi noonu waaye kañ lañ ko mën a joxe am na ca ñoom ñoo xam ne nii dem nañ ba ne bu koor gi teroo rek mën nga koo joxe am na ñoo xam ne dañ ne bu koor gi digg doomu doonte ne wax yooyu nekkul wax yu dëgër la nga xam ne daal moo am tegtal ci sahabatul kiram daan ko def mooy daal nañ ko génne ñaari fan avant ñuy korité masalan tey jii su àjjuma ji nga xam ne korité bi moom lu mu yàgg-yàgg leen di lay doon tey jii da ngay gis ne bu ñu xëyee tey jii samedi ku mu neex nga génne sa zakatul fitre même bu doon te ne dañuy dañuy wari leen sax mooy kon am nga deux jours avant la nga xam ne mooy korité la lan ci jublu mooy ngir faqir bi mën a am loo xam ne moom la waaje bu dee lu muy defar la mu mën koo defar ci loolu lii mbokk mooy la nga xamee ne nii moom la ñuy wax ci wàllu zakatul fitre boobee su ko defee lii nga xam ne nii moom mooy zakatul fitre ki nga xam ne nii moo ko war a génne mooy ci jullit bi nga xam ne boppam la koy génneel ak képp koo xam ne dundam da koo war yow mi nekk ci kër gi mboolem ñi nga xam ne sa dund da leen a war ñooñi di soxna yi ak doom yi yow la zakatul fitr nekk ci yow nga war koo génne ñoom nag buñ ko génnelee seen bopp loolu ak coobera la nga noonu ak coobera la te it nañu xam ni képp koo xam ne nii nekk nga doom ju majeur te am loo génne zakatul fitre su boobaa da ngay gis dund ba moom waratul sa bàyyi bu lu ko génne lii it loolee zakat ba teggeeku na la mooy ña nga xamee ne nii sa dund seen dund warul ci yow mi képp koo xam ne génneel nga ko zakat zakat boobee teggeeku na ko doonte ne moom ci boppam bu ko defaloon boppam ngir sàkku tuyaaba yuy dolleeku loolu it nga gis moo gën ci moom zakatul fitre boobee la nga xamee ni nii moom la war a def mooy ku nekk fa nga dëkk nga ko war a génne ñooñu it nga ko war a jox xanaa lu dul nga yëg ne day am na ñeneen ñu ko gën a aadowoo ci coono lool nga dog koo toxal jëme ko ci ñoom naka noonu ñu la ko waxee yet yow mi nga xam ne da ngaa nekkoon bitim bitim réew wala feneen tey sa waa kër bu ñu la ko génneeloon fii ci Sénégal loolee da gis ne mbir la boo xam ne nii teggeeku na la lii lépp mbokk suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ci jublu ngir jullit ña ñépp bu ñu mënul chaque jour ñu génne ñu génne sarax wala semaine ñu génne sarax au minimum au minimum mboolem jullit ak njabootam chaque année dañ génne sarax te xale bi nga xam ne nii dafa juddi biig sax day bokk ci ñi nga xam ne day génne azaka am na ñuy la ñi nga xam ne nii dañ koo ëmb mbokk ku ñu ëmb zakat waratul ci moom boo koy def da koy def sa coobare waaye zakatul fitre mi ngi war ña nga xam ne dañoo judd su ko defee au moins jullit chaque année da nga génne ah, loo xam ne da nga koy leen miskin te suñu borom nee na xoolal ana kan mooy ki weddi bis benc araayta allazi yukasibu diin suñu borom mu ne fa zalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin ki wedd bis penc mooy ki nga xamee ne nii day bëmax ay jërim du leen dimbali ca du ñaax kenn ci leen miskin ay moom du leen miskin waa sawara bu ñu leen laajee ndax ngeen dugg sawara bokk na la ñuy wax wa ma kunna nut'imul miskin ñun daaw ñu leen miskin looloo tax ba mbokk julit au minimum góor jigéen mu wóor na la ne man day at mu ma at mu ma romb ba ma juddoo ba tey sama baay mi ngi koy génneel at mu ma romb génne naa ci ah loo xam ne dama koy jox la nga ne mooy masa génne yi loolu mbokk muy benn doonte ne ne mbokk suñu borom heure bu ñuy ñaax ci génn zakaatul farata heure bu ñuy farataal ci ñun zakaatul fitr def ngir attirer suñu attention attirer suñu attention ci ni société bi day am na ñu ci yelloo ndimbal loolee faratal naa ci yéen ngeen di ko def at bu nekk waaye nga la waay bu zakatul fitri passé yi ñooñee nga xamee ne nii dañoo aajoowoon du ne bisu korité rek lañu aajoowoo ndimbal bisu korité war a añ jëree la année bi yëpp dañuy añ jëree loolu tax ba loole it ñu war a tàmm tàmmal suñu njaboot la nga xam ne mën nañ ko di dimbali doomu aadama yi nga la waay ñu koy def mi ngi noonu mbokk zakatul fitre boobee naka yonent bi alei salaam bàyyee woon bàyyee wu ko woon ci ay poids da koo bàyyee woon ci nattukaay nattukaay yooyee moom la ñu tuddee saa saa boobee nag borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci naka lay toll ndax tey jii boo jëloon la nga xam ne potu deux kilos nga def ci dugub pesé pare def ci ceeb pesé ko ñaari poids yu du yem nga def ci mboq pesé du yem blé pesé du yem loolu tax borom xam-xam yi wax ci wax yu bëri wax yoo xam ne ñu ngi tourné entre deux kilos ba am ñuy dem di ko yóbbu sax trois kilos loolu moo tax ba bokk na li nga xam ne lu gën a digg doomu la mooy yow bu doonte ne sa kattan yegg na ci ngalla waay ku nekk na ko génneel deux kilos waaye nga teg ca même bu doon génn wàllu livre ceeb nga xam ne bu doonte ne dafa am ku ne 2 kilos di 8 kilos def ko 9 kilos nga xam ne ku ne dana am au moins 2 kilos ak genn wàll libre ceeb ixtilaaf boobee te xam ne tey boo génne na ku nekk 3 kilos yi loolu la problème sa bopp rek ngay dencal fa man tatawwa xayran fa huwa xayrun la su doon sa waa kër yëpp seen zakat fitre ñaata la 15 kilos nga jël sàkku 25 kilos sarxe ko tuyaa bari la lay jural loolee kon nga fexe ba indi loo xam ne wóor na la ne daa ëpp la nga a def moo gën korkoral ba man ci la nga waroon a def loolu yi ngeen bàyyi ci xel bu baax mu def beneen masala boo xamee ni nii juyoo gu rëy am na ci borom xam-xam yi lépp ñu yàgg lool mooy ndax zakatul fitre mën nañ koo génne xaalis am mënuñu koo génne xaalis bu ñu xool lu ëpp ci ñoom dañoo dellu ca texte cosaan ya yonent bi alayhi salaam ñam la waxoon ñam lañ koy génne kenn du ko génne xaalis donte ne ne am na yeneen borom xam-xam yu commencé dépp ci ñoom Abu Hanifa ak borom xam-xam yu gis seen gisin ne déedéet génne ko xaalis mooy la gën ndax mooy la gën ñeen miskin yi kii di Muaz ibn Jabal ba mu demee Yaman di war a jël la mooy zakat bi ci dugub yi ñu doon bay ak bala yi ñu doon bay gars bi ñu ñuy def seen zakat daf doon wax ne soppil leen ko ay tisi ndax sahabatul kiram ay piste lañ gën a soxlawoo ci seen ci dugub ji ñu ko doxee valeur bi en piste mu doog koo yóbbu madina lu bëri ci borom xam-xam yëpp dañu ne tey ji miskin yi la ko gën a arrangé mooy la nga xam ne mooy xaalis boobee loolee kon mënees na ko génne xaalis muy ñaar yi gisin am na nag ñoo xam ne dañ caa digg dóomu ca ñun ñooñu la ñu àndal mooy ñi gis ne cosaanu zakatul fitre mooy lu ñuy joxale lekk la kon tant que gis nga miskin man koo jox lekk mu jëfandikoo ko ah su boobaa jox ko lekk gi mu jëfandikoo ko moo gën mais bu dee miskin bi nekk na ci état boo xam ne soo ko joxal lekk gi da koy sonal tey jii na tey un jeune chômeur ngi nii luyee fii benn néegam masalan tey nga ne da jël ñaari kilos ceeb jox ko lan lay def mooy dem ci bitik ba jaayat ko fa rek su ko defee kenn ci borom xam-xam yi nekk Kuwait nga xam ne day défendre day défendre lii mu ne moom day da daan contre ñi koy génne xaalis mais nee na bis dafa am benn magasin ci Kuwait xam nga naar yi ñoom comme yonent bi dane zakka ña ngi koy génne ci tàndarama ñoom dañ koy génne léegi ba tàndarama lañ koy génne su ko defee am benn magasin nee na ci Kuwait dafa teg benn balance na li di jaay ba gaa yi def benn fil di ñëw di jënd tàndarma dañuy gis ku ñëw jënd vingt kilo tàndarma mooy zakkaatu la nga xam ne mooy waa këram dem jox ko miskin yi miskin yi bu ñu ko jëlee dem ci beneen buntu magasin bi beneen balance nga fële su ko defee boroom magasin bi bu jaayee ñuy tàndarma bi ku ne deux mille jëndaat ko ci miskin bi ku ne mille cinq cent bu ko defee dañuy dem bañ pare ñoom ñëpp ñu ne bi tàndarma ju ne génn magasin bi mu ne nag waaw lii kay borom alal yi téye woon a jël xaalis bi jox ko miskin yi directement su ko defee miskin bi au lieu moom dix kilos yi mu am ci quinze mille ci magasin mu am vingt mille loolee doon loo xam ne lu ko convaincre la ala kulli xaal dépp ñoom Ibnu Taymiya ak ñeneen bokk na li ñuy wax mooy soo demee ba gis ne yaqiin ci ne ko ko moom mu dem jënd lekk jënd ci leneen moo gën ci moom su boobaa yow mën nga ko jox xaalis bi su doon te ne nag ceeb dafa doon lu jafe wala dugub jafe boo joxoon miskin bi xaalis day am problème pour jënd ceeb amoo droit di ko jox xaalis yaa ko war a lijjantil sa bopp su ko defee xaalis bi naka lay demee sa waa kër loolu lañ di dundale ceebu mbay ceebu karoline dugub lan ngay dundal sa waa kër su boobaa ngay xool ana saa bi lan lay méngool masalan tey jii buñ ne woon yow da ngay génne masalan deux kilo cinq nga dem ci borom bitig bi laaj ko waaw deux kilo cinq cent ñaata lay jar mu ne la masalan mille franc fukki doom fukki sama njaboot fukki lañu kon muy dix mille dix mille yooyee ngay jël di joxe mbokk lii mooy la gis ne mooy la gën a digg doomu ci diggante waxi borom xam-xam yi ne munta nekk ak ña jàpp ne moo gën la gën a digg doomu mooy miskin bu nekk ak faqir bu nekk ñu étudier ko xool naka lañu war a jëflante ak moom te lépp loo ci def nga xool ci ngërëmal yàlla jalla wa ala lii mbokk mooy la nga ni ne nii moo aju ci wàllu zakatul fitre boobi su ko defee képp koo xamee ne nii ah, jël na bay jël di ko joxe ngalawaay mu jublu ci ne maa ngi jaamu sama boroom ngir am ngërëmam maa ngi jublu it def njekk sama mbokk jullit amul lenn loo xam ne dana kontaan loo yàlla jullit def njekk jëm ci mbokk jullitam jullit mbégal mbokk jullitam te it mbokk bi si it bi nga xam ne mi ngi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax fexe leen ba bisu it bi kenn du dem di ñaan dimbal fenn fexe leen ba kenn du dem di ñaan dimbal fenn xëy na tolloon nañ ay temps jamono ba muy dund nit ñi seen problème central mooy ndax am nga loole lekk soo amee lu rek problème yi jeex na waaye mbokk ñu ngi dund ci jamono boo xam ne lépp xaalis lépp xaalis la su ko defee it bii di ñëw it képp koo xam ne dëkk nga ak ñoo mën a jàppale nga la waaye loo leen jàppale ci yàlla tax xamal ne loolu day luy yàlla gërëm la te it def nga ko fa war a defee képp koo xam ne am nga ay mbokk ci àll bi xam ne te ñu bëri ci léegi xam ngeen changé nañu dañuy bëgg di togg ay ay soos comme ni ko caamini di defee dañuy bëgg di sol solal sol lu baax solal ko seen njaboot ñooñee tamit ñu nemmeeku ci leneen ñu nemmeeku leen ci leneen loo xam ne ni du bokkul ak zakatul fitre nga la waay loolu day ñu benn ndax ñun benn mbooloo lañu benn jurit lañu li tax ñu tëdd ko idul fitre wala idul adha mooy feet lay doon ci mboolem julit bépp jullit da cee war a yëg boppam ne kat bisu tey moom maag sama njaboot nous sommes à l'aise maag sama njaboot dara manqué wuñu lii mooy tax ba iid boobee matale ku nekk ñun war caa def sa kéemtalaal kattan su ko defee mbokk lii nga xam ne mooy zakatul fitri yow jullit da ngay xam ne ka nga xamee ne nii moo ko gën a yeyoo mooy faqiir bi ak miskin am na borom xam-xam yu naan dañ koy jox juróom ñett ñi ñuy jox zakat ñëpp borom bor yaag ñu nekk ci njaam ak ñu nekk ci nangam nangam waaye lu ëpp ci mazhab bi rawatina Maalik ak ñu mel na moom dañ ñu déedéet bu dee zakatu alal juróom-ñetti buntu yooyu yëpp mënees na ko faa def amma zakatu fitr ñoo ngi ci jublu mooy bisu iid bi fakir yi amul lu ñu lekk ak miskin yi am ci lu ñu jàpp kon ñoom ñooy priorité ci loolu loolu mbokk kon ñu ngi ñaan yal na yàlla yombal ko ci ñun ca nangul ñu ko gannaaw bi yéen mbokk jullit xam ngeen ni suba la ñuy séentu weer bi su dee yàlla subhanahu wa taala dogal na mu feeñ kon nañu a woote fii jullit iit daañ ko taxawal incha allah neuf a demi mi nga noonu daañ ko taxawal incha allah neuf heures demi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm yàlla nangul ñu ca nangal mboolemi julit ak ku ñu mën a nekk ci kaw suuf allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi wa qina النار اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا اللهم تقبل صدقاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسق والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين